Sénégal am na ay doomu réew mi yoo xam ne dañoo xarañ mën li ñuy def moo xam pouvoir lañ nekk moo xam opposition la ñu nekk te ji est-ce que war nañ jiital politique ba tax ñuy euh, ñuy ñàkk yooyu yooyu yooyu bras foofu foofu laay waxee en fait. dafa mel ne un peu nga baal ma lii euh, Abdourahmane Diouf bind ci démocratie de concordance maanaam euh, ñu liggéey ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na même s'ils ne sont pas du pouvoir loolu tamit doon na doon loo xam ne xëy na bu dee jëmale réew mi kanam ñu tax a jóg lu ñu war a envisager la. waaw bu ñu gisee président bu ko bëggee defee noonu mu defee ko noonu waaye le plus important ci li ma jàpp mooy euh, liggéey bi est-ce que ñu ngi ciy am ay résultat mm-hmm. est-ce que lii contrat de confiance bi am entre président de la République ak population bi ndax euh, ministre yi muy tànn ñi ko war a matale ndax ñu ngi koy def pour man foofu looloo gën a am impact looloo gën a am en fait euh, ci c'est sur quoi nous serons jugés. Mm-hmm. fii la bokk fële la bokk président mooy tànn équipe mooy coach. tànn équipe am dugal ay joueurs am génne l' essentiel mooy li ci bëgg match bi nañ ko gagné. foog naa ne justement tey jii nii yëf yi a bett a moo ko remplacé mais les deux ministres yi ñu remercier tey jii nii parce que noonu la ko mën a waxee euh, il est fin aux fonctions de lañ bind. Euh, gis nañu que ne l' intérim assuré par le premier ministre bi nga xam ne euh, voilà ça ça signifie quoi que daf leen a bett parewu leen dëgg la. vous n'êtes pas euh, celle qui souffle à l'oreille du président mais war nga ci am votre votre mot à dire. ni ñu koy waxee ne dafa mel ne dafa nekk lu bees Sénégal lii dugg leet. Mhm. bu ñu ne tirons pas des plans sur la comète euh, temp temp rek lépp dina leer président li ko motiver li tax mu ne euh, ñaari ministères yi da koy delloo primature. moom moo ko xam te it bu ñu fàttee ni euh, premier ministre wax dëgg yàlla moom mooy euh, c'est le chef du gouvernement. Mm-hmm. donc euh, bu président décidé ni dañ ko fay dello waa léegi le plus important rek mooy liggéey bi ma dinaa dem dina avancer am déet. justement gouvernement boobu bi ñu koy bi ñu koy